كان من الصفات له شروط فعملت الخروج به نحو ذلك فتاي من الصفات ديو خون تام بو امي اي سارت سارت نانك ديف نونو مونو مو تاغا خول حديث بو خامني سارت سانغام موتي مانكي كي صفه سانغام لو ملني عداله عداله دا ام اي لوكاي لوم ديم ام اسلامان تي بلوغان تي اك عقل مروءة ak asalaamatu min asbaabil fisq nga jël benn bu ne ndax bii raawi bi daa manqué bu luux la amut mu doon xeetu boppam ndax bii mu rool la amut mu doon xeetu boppam ñu mel noonu fa tatadaaf bi dalika al aqsaam bu ko defee kon boo ko doxalee noonu rek aqsaam yi day day limu rek di dem moo tax ba ñeent fukk ak juróom-ñeent yi day mel na lu bari waaye sax taxut mu mu mu mat ku ko toppal mën na ko ëpp lool lool lool waaw amut fu mu yem dëgg dëgg amut fu mu yem walladi lahu laqabun xaasun maaruf daanaka mi ngi mel ne wéradi rek wéradi bu nekk diw daa wéradi xeetu wéradi yëpp kenn mënu koo xam waaw man nga jàpp yenn nag yoo xam ne jàpp nga ko moom xam na si buru nangam nangam nangam yooyu jàpp ko rek ay firiwul ne yooyu rek ay wéradi moo tax mu ne walladi lahu laqabun xaasun maarufun min aqsaami dalik yi am nag turu turu yi am tur laqab fi tur lay firi yi am tur bu mu jagoo tañ xam ko ci xeeti daay fii yi mu tudd ci la ak yeneen ci dégg ne kon du ne lépp luy daay rek mën nañ koo tudd waaye yi daal xam nañ ko tudd nañ leen leral leen wax bu ci nek moy lan mu ne yooyu mooy al mawdu al maqlub al shaaz bu nek dana ñëw ci kanam ci bir al muallal al muttarib al mursal al munqati al muda fi anwa'in sayati alayha sharh fi anwa moy rek ak yenen anwa moy yi ci biir anwa lañ bokk yo xamne ne ko leral ci kanam kon moy tuddul yëpp moom da nga xam ne amnañ ay tur ñu xam leen di leen leeral wul ne yooyu rek am nag ci daanit yooyu rek ci manam wal malhuz fi ma maanaam والملحوظ فيما نوري فيما نورده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه من أنواع يني عندنا في كتاب dañ cee jublu anwaa ulumil xadis waaye jubluñ ci anwaaul xadis anwaaul xadis yi yiñ yiñ leeraloon tàqale ko moom ñett yooyu rek la saxiix xasan daif fii nag anwaa ulumil xadis la ci jublu bu ko defee saxiix rek day doon ay ay ay xeej ay xaat ay xeet yu bari xasan doon ay xeet daif doon ay xeet wa nasalullah tabaraka wa taala taamiman nafna bihi fi daarayn amin kon foofu rek day wone ne daif daal mooy lépp lu amul sifaatu saxiix newu ca sifaatu xasan newu ca ay xeetam nag amut fu mu yem daanaka waaye am na ci nag yuñ yuñ xam moom di ko tudd di ko leeral di ko xam ne annawu rabia maarifatul musnad mooy buñ nee musnad lan lañ ci jublu fii nag menn maanaa rek ci musnad waaye bokk tëg musnad daa am ay maanaa yu bari ذكر أبو بكر الخطيب البغدادي الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث موي هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى إذن جنا موم ابن صلاح لم دوغ رك داي واخ نيكو جيت وون لنجا واخ كوني نام كو نام كو نام كو جاب بو نوبي نك موم مانا اندي لام تان موم من خطيب الله تعالى ني لا تعريفه مسند هو الذي اتصل اسناده من راويه الى منتهى mooy kon rek mooy muttasil rek kon bépp xadis boo xam ne sanad bi am na ittisaal fa mu tàmbulee ba fa mu yem rek moo xam fu mu mën di yem waaye fa mu yem daal am na rek mooy musnad kon fii musnad mooy rek muttasil muntaha mooy ka ka sanad bi yem fa da cee jub benn mu yonente bi wala muy ab saxaabi wala muy ab taabiam wa aktharu ma yustaamalu dalika nag ci ma jaa an rasulillahi sallallahu wa sallam duna ma jaa an sahabati wa waaye fi ëpp li ëpp fuñ koy jëfandikoo nag mooy fekkee dafa àgg ci yonente bi sallam mooy dañu askanal yonente bi ba noppi tam am ittisaal foofu lañ koy gën jëfandikoo waaye teewu tam ëmbaale na ci li xatib wax moom ëmbaale na itam lu ñu askan lépp saxaab yi wala ñu askan ko دي أم صلى رك سند دي أمنا اتصال وذكر أبو عمر ابن عبد البر الحافظ أن المسند جسم وحنا بو وحنا بو خطيب نكو تعريف ما طلق متصل لك مو عندي بو ابن عبد البر نموم مسند موي ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مام جسم دانا مسند موي لين أسكن على يونتبي صلى الله عليه وسلم Madrid. يعني أسكن للكنان بكودون وقد يكون متصلا من نا نك متصل من نا بني نك متصل kon moom ibn ibn abdul bar moom dane musnad rek mooy lu ñu askanal yonente bi moo xam muttasil la moo xam du muttasil mën naa nekk muttasil lu mel ne malik an nafi an ibni omara an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sanad bi muttasil la waxat yakunu munqatian بمعنى مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فهذا مسند نكو ابن عبد البر وخا نفس تي يونت بن اسكار لانه قد اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقطع لان الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه كون ابن عبد البر مم مسند رك موي دال لوني اسكار لا يونت صلى الله عليه وسلم مقام متصل مقام منقطع خطيب وخان مسند موي لو ام اتصال اك بون كو مانتي اسكان نيار نون يو بوكوت موي من وحكى ابو عمر عن قوم ان المسند لا يقع الا على ما اتصل مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بنين ني موم دا بولا نيار نيار ييف daa boole ñaari yoon na nekk muttasil dañ ko askanal yonent bi mu door a tudd musnad mu ñetteelu taarif boobu nag mooy biñ biñ biñ mujj jàpp biñ ne musnad ñëpp ci waroon xam-xam buñ ko lañ ci jublu mooy luñ askanal yonent bi tam am ittisaal qult moom ibnu salah gis nga mu ne wa bi hada qataa alxaakimu abu abdillah alxaafid الحاكم بوم نانا تانيف موجي في لا دوغو كي لا دوغو ولم يذكر في كتابه غيره مو صاح تود بنان داكو موم رك لا تود كون موم رك لا جاب موم فهذه اقوال ثلاثه مختلفه والله اعلم موجي بوبو نك موم لا نيو جاب موم لا ا آه، بروم خام خام نيو جاب مسند دال موي بن اسكان يونتو تام ام اتصال النوع الخامس معرفة المتصل ويقال فيه أيضا الموصول المتصل لك واحد موصول ومطلقه مطلقه ما يبون كو واخيا رك يمتي بن حديث بيم متصل لا رك يم حدث بيم موصول لا رك مطلق يقع على المرفوع والموقوف دانا دانا كو مانا حديث بنك مرفوع من كوا حديث بنك موقوف نعبي وح قد نيا لان كان غير من نيا جيسس لما يمرفوع لما موقوف فايكون موصول دال ولا متصل كون موي والذي اتصل اسناده كون موي حديث بو خامي سند اتصال امنا اتصال موي فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه mooy ruwaat yi tudd ci sanad bi kenn ku ci ne da ko jële te ko ko féete kaw moy moy ka ka kam ko askanal boo ne sëñ mbàkke nee na daa fekk ci sëñ mbàkke laa ko jële sëñ mbàkke nee na sëñ musufa lay da daa fekk sëñ mbàkke yi sëñ musufa la ko jële sëñ musufa lay neen ba sëñ jëtara neen da fekk ci ba sëñ jëtara la ko sëñ musufa lay jële ba sëñ jëtara neen sëñ mat laamin jóob da daa fekk sëñ mat laamin la ko jële سن بلعب نان سن بمك بنانا دا فاك سن بمك الفجر لول موي كل واحد من القسم ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى بم أجف فم يم مقام بيرن تبيل كولين كاسكنا لم يم فوالد ساجي لم كاسكنا لم يم فوالتابع مثال المتصل المرفوع يوح مرفوع تغير طيب لير لغو كبالي مثال المتصل تنك مرفوع مرفوع تغير لغو كبالي مثال المتصل تنك مرفوع مرفوع تغير لغو كبالي من أسكن اليون تبرم المرفون نجح مثال موحب متصل تمرفو على يتم ما يبو مالك جليتي ابن شهاب مجليتي سالم ابن عبد الله ابن عمر مجليتي بايم عبد الله ابن عمر مجليتي يون تبرم صلى الله عليه وسلم سند بي متصل نخ مالك كي ابن شهاب لجلي كان دخل سنتي جنتي كي موم لجلي موم ميم تدو لجلي ابن شهاب سالم لجلي كنت خو سين ديغنت كوم نياك تودو سالم تي بايام عبد الله لا جيلي كنت خو سين ديغنت كوم نياك تودو عبد الله بن عمر تام تي يونت لا جيلي كنت خو سين ديغنت كوم نياك تودو كون متصل مرفوع ليت ناخ يونت لا نكو اسكانال ومثال المتصل الموقوف موي موقوف موي لوني اسكان لي صحابي مو يام تي موم فتاي مالك دا فا نافع مو جيلي ابن عمر مو جيلي تي عمر مجرد عمر لو خمنا وخم لا مو عمر xawlahu mooy waxam la moom du wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wallahu aalam kon muttasil rek mooy loo xam ne daal sanad bi am na jog ko ku ci ne kam ne moo ne ci moom la jële amul ko dox seen diggante koo xam ne koo tudd man mën naa ne sëñ Ibrahima Diop nee na man nee naa nee naa moo ne waaye xamna ko dox sun diggante ko xam tuddu mako ko kooku mun xataan la معرفة المرفوع عنده سادس وهو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة مرفوع مؤلف أسكن رجال صلى الله عليه وسلم ولا يقع مطلقه على غير ذلك بنكو إطلاقه بنكو إطلاقه مو ني واخ تك دارا ne xadis bi marfoo la rek boobaa nee na kon duñ ko jëfandikoo ci lu dul luñ askanal yonent bi loolu rek lañ sañ wax ne marfoo la te caateeg dara mhm. duñ ko duñ ko tuddee lu dul luñ askanal yonent bi lu ko doonut lu mel ne al mawquf ala sahabati wa ghayrihim mooy loo xam ne dañ ko askalib sahaaba yi kenn du ko tuddee marfoo marfoo rek te tegoo ci dara ويدخل في المرفوع المتصل كون مرفوع موم متصل دا نتي دغ منقطع دغ تي مرسل دغ تي اك يي مل نيوم كون ليب تي ما دغ رك لي ام سولو موي دال يونت بي لنجو اسكانال من نانيك متصل من نا باغي نيك متصل فهو والمسند عند قوم سواء زين كون نينكو تعريف ني موك نين لي نين تودي مسند نيويا نين ني موي لام واخون تي خطيب خطيب آه، ابن عبد البر ابن عبد البر ما ما واخون ما <coughs> واخون مسند موي لي اسكنال يونتي كون ابن عبد البر نم تعريف مسند موم ماك متس ماك مارفون بي نيوي والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما معا عليهما جميعا كون ابن عبد البر نم تعريفه مسند ak suñu mut suñ marfon bi ñoo yam ndax ñom ñaar ñep dañu muttasil mën na ci am xotna mën na ci am wa inda qawmi nak yaftariqan bu dee ci ñeneen nak dañuy wuute ñom ñaar dañuy tàqali ko mooy dañuy wuute yaftariqan fi anna al inqitaa al-ittisal yadkhulani ala al marfu mooy ittisal ak inqitaa mën nañoo am ci marfu' mooy marfu' mën na nek mutasil mën na nek mun xotam ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تعرف وجبين يخون نك تلين مهم الحاكم وح جناب نطب كجيتا يبتغل مخافن مهم نطب ما مسند ما يبنك متصل نبتين أسكن الفين رسول الله صلى الله عليه وسلم كن بابا يمون قال الحافظ أبو بكر ابن ثابت المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله وعلم يخبر من دونك خطر لأن المرفوع ما يلوح من أب صحابي موكو أسكن لي صلى الله عليه وسلم مي وخو لجف فإن أب صحابي موكو أسكن لي فخصصه بالصحابة هم دكو جاك لأب صحابي أسكن لي صلى فيخرج عنه مرسل التابعين ما تقن باب تابعي اسكن لي دار يونت بي دو دغ سي مارفون كي في كي نيكو ابن ثابت تعريف مو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنا بالمرفوع المتصل نعم بوفكتي واحد يسكو خمنا دا جاب مرفون صفا نوت مرسل مقابل موي صفا نوت بابا دا جوبلو تي مرفون رك متصل لا تي جوبلو مرسل تام دنج تي جوبلو منقطع مرسل دنج تي جيفنيكو تي جوبلو تي منقطع رك كون كي جيفنيكو مرفون جوبلو تي متصل كي واخنا مرفون صفا نوت مرسل لا موي دا جوبلو تي مرفون مام متصل جوبلو تي مرسل منقطع لم نرى صفا نوت te bu dee taarif yi ñu yi ñu mujj jàpp moom dañu ay safaan ñoom ñaar mën naa nekk marfon boo nag boo nag nekk morsal morsal bu ne sax marfon la hmm. maarifatul mawquuf mawquuf ma gudd وهما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها كون موي لوني اسكان لا اك صحابي تام يمتي موم مي واخي بوبام ولا جيفي بوبام ولا لال ميرم بوم بوبام فيوقف عليهم ولا يتجاوز به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم موي دنجكو يمال تي نيوم جالالو نكو تيرنتو صلى الله عليه وسلم ولا ثم إن منهما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي لنك موقوف من نعم اتصال بعد الصحابي فيكون من الموقوف الموصول ورفي منك موقوف ونك متصل ومنهم ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول فك اتصال أمته موقوف له ونك متصل منقطع منقطع من غير موصول على حسب ما عرف مثله في المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ñu من توقع liñ مرفوع waxe من أنك متصل من أنك منقطع موقوف muttasil mën na nekk munqasim mawquuf وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا من جاغلال جاغلال جين كو الصحابي نك موي بو dañ ko itlaq dañ ne mawquf rek boobaa kon sahabi rek la ci la yem waaye nag waxat yustaamalu muqayadan fi gayri sahabi amaana nag ñu jëfandikoo mawquf te xaydu ko mooy am luñ ca teg luñ ca loo xam day wane ne jubluñ cib sahabi lu mel ne xadiisu kada waqafahu fulanun ala ataa

mu ne fuqaha yi dëkk Xorasaan nag ñoom ci seen waxin ñoom danañ di jëfandikoo mawquuf danañ di jëfandikoo asar jublu ci mawquuf ñoom buñ ne asar dañ caa jublu mawquuf mooy lu ñu askanale saxaab yi qaal abul qasim al fawraani wala al fuuraani ñaar yëpp lañ mën a wax minhum mooy ci ñoom la bokk ci fuqaha Xorasaan la bokk ci ma balaxana anhu وحنا الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم فقهاء سين فقهاء لبي الله وحنا الأخرى سام من بنا خبر ما بنا أسكن الجنة بنا أثر ما بنا أسكن الصحابة وطلب موقوف معرفة المقطوع وهو غير المنقطع الذي ياتي ذكره ان شاء الله تعالى من مقطع دينك بوكوتك منقطع بيني بغا وقت كانم ويقال في جمعه مجمع جمع مقطع دنجي وقت مقاطع دي وقت مقاطع بوكوتك منقطع وهو تعرف بما ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من اقوالهم وافعالهم كل ما يلين اسكن التابعين مو gis nga kon ñett yëpp ñëw na lu àgg ci yonente bi mooy marfon lu yem ci saxaabi yi mooy mawquuf lu yem ci taabiin mooy marfon قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه من الحديث المقطوع من المقطوع في حديث لبق وقال من المقاطع هي الموقوفات على التابعين الخطيب البغدادي بينكو يخ نون لاكو واخا المقاطع هي الموقوفات على التابعين كون موي ني اسكان لي التابعين لي مو والله اعلم قلت وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الامام الشافعي نانا واخنا على تي كاو منقطع بوكوتك مقطوع وانا كم تي بروم خام خام ньо خامني جيفانديكو نان جيفانديكو نان ما خطوان تجبري منقطع كما الإمام الشافعي كما أبو القاسم الطبراني ينام يصنع تسعين وقت نوم نوخ ما خطوان تجبري منقطع فعلو نوم نوكو دفرقا أنك آه، بورم خمخ مرنيان وطلع مواندي تفريعات دو خمنا دا أجوتي مدر وخيب تجنته مرقوان مقطوع مقطوع مقطوع ahaduha qawlu saxaabi kunna naa kada fii si dañuy wax la yoo xam ne dañ naan la lafz bi nàngam la waaye maanaam yi nag nàngam la mooy lafz bi àtteb sàngam la waaye maanaam yi nag beneen àtte lañ koy jox man xawlu saxaabi kunna nafaalu kada ab saxaabi bu waxee ne daanan def nàngam aw kunna naqulu kada wala mu ne daanan wax nàngam اب صحابي بوخي لول ان لم يضيف الى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف بو فكي تيغو تي ني جامونو يونتي دا دا ديف نانغام رك وخول ني جامونو يونتي كو تي تيغو كون موقوف لا نكوي جابي دا نكوي دا سين مير دال نيو صحابي كون دا نكوي جابي وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع لأن واي بو تاغي نك تي جامونو يونت بو نه دانا نجف نانغام تي جامونو يونت بي بابا كون نانا ابن البيع مي نينن تي وا حديث اك نينن سو نيدو وا حديث داج نون مرفوع لا نكاي جاب مرفوع لا نكاي جاب دونت لو نيك لي صاح نكو خا خا نني تودو سي صاح جامونو يونت بي تام borom xam-xam yu bari itam arfan lañ koy jàpp ndax waxin yi rek day dañ ciy dégg ne ab saxaabi bu naan daanañ def nangam bi mu koy wax da cee jublu euh, cëslaay ki muy waxal da koy jox cëslaay te cëslaay nag ci yonte bi rek lay jóge kon bu ne na jamono yonte bi itam dañuy xam ne jamono yonte bi ndax mu doon ci jamono mooy tax mu nekk cëslaay hmm. wala bu dul jamonoom doon seen jamono ñoom kese itam buñ ne daanañ def mooy kon dañ caa dëppoo woon te ba tey buñ ci dëppoo mu nekk xujja ba tey donte bu bu nekkul marfan itam nekk xujja boobu daan ñu jàpp ne la wala bu nekkul marfan itam ko daanaka ijmaa ci ñoom wala ittifaaq ما تقتي حامس موهنا لكن ذهب العراقي وابن حجر والسيوطي إلى أنه مرفوع ما بنيك بنيك خمينة وخجة تجمعنا يونتو تقول نعم جابكو مرفوع لأن الظاهر من مثل قول الصحابي كنا نفعل كذا أنه يحكي الشارع بيوغلول لتجبلو يحب أرتف يحب أرتف لتجبلو لأن ذلك كان دأبهم نحن نقول ما نكون سنة أعلم ما نندم بخير kon donte waxuñ ci ci jëmono yonte bi sax day jàpp ne rek ne batay euh marfon la wa balaghani an abi bakr ibn al barqani wala birqaani ñaar yëpp baax nee na annahu sal abu bakr ismail al imam an zalika fa ankara kawnahu min al marfu mu ne birqaani nak nag nee na laaj na laajoon na abu bakr ismail ne ko bu sahabi ne daanañ def nangam ci jamono yonente bi ndax marfuu la mu ne ko déedéet wal awwal huwa alladi alayhi li'timaad li njëkkoon a wax nag nee na mooy li ñuy sukkandiku mooy ne bu ñu waxee ne jamono yonente bi la kon marfuu lañ ko jàpp li anna zahira dalika mushairun bi anna rasulallah rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam talaa ala dalika wa qarrarahum alayhi ndax waxin wi liñ ciy dégg moo dina yonente bi kon yëg na ko te bàyyi na leen ci waaw bu ne daa nañ def nangam ci jamono yonente bi dañ cay déggee ne yonente bi yëg na ko te te bàyyi na leen ndax daanañ bokkut ak mas nañoo mas nañoo moom benn yoon rek mbir mën naa am benn yoon rek mën na ko bañ yëg waaye daanañ moom lu daan lu daan faral di def loolu faral di def dina ko yëg te bu ko yëgee buñ ca saxee mooy da leen caa bàyyi وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة نيم كو خامي تقرير بن لا سي سنة سنن ييغا خامي مرفوعة لا فإنها أنواع ناخ نعم، سنة مرفوعة أنواع هي الأقوال أك أفعال أك تقرير تقرير موي سكور رك موي سكوت عن الإنكار بعد الاطلاع يعني لول موي تقرير موي مو ييكو با نوبي تا تريوكو ومن هذا القبيل بوكو نتي باتاي لو خامي dañ koy jàppee marfon qawlu sahaabi kunna la nara ba'san bi kada wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fiina moo ne daawuñ jàppe daawuñ jàppe ne nangam aay na te boobu yonente baa ngi ci noonu mu ngi ci noonu boobu yonente baa ngi fi te jàppe wuñ ñoom nangam muy lu aay loolu tam dañ koy jàppe tey marfon mhm. wala kaana yuqaalu kada wa kada ala ahdihi kon bu saxaab yi ne jamono yonent bi daa wax nangam ak nangam jàpp ne marfo jàpp ne ba tey yëg na ko te na leen kaanu yafaluna kaza wa kaza fii xayaatihi nit ñi daanañ def nangam ak nangam ci dund fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp dañ koy fa kullu dalika wa shibhuhu marfuun musnadun muxarrajun fi kutubil masanid nee lu mel nii مرفوع على ماي دنك يابلو أسكان ديانتي مثلا تموس نبلا ماي متصل ليت مخرجين في كتب المسانيد عندنا نقول مين خم ندني سامون تك عندي لين يعني أسكان ديانتي بني عندنا نقول كنيوم يابلو نقول لبيك ديانتي مثلا وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال أبو عبد الله من الحاكم النساء أبو رنانة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير مغير ابن شام ما وخ لول ما وخ ني ما وخ ني صحابه يونت بي دان فجي بونتم سيني وخ وخينو دتي دغني كون لو دغان لا باسكو دا دان نكو ديف مي كون نيغون نكو تيرو لين سين كون من ان هذا yatawahhamuhu man laysa min ahli الصنعة musnadan eh, abu abu abu abdullah mom da da daa ci japp ko musnad mom motax tax mu ne lii koo xam ne ci xam-xam bi mooy ko xam bokku ci borom xam-xam hadith dal da ko jappé musnad moy marfu da ko jappé marfu ngir liñ ci tuddu yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye nee du musnad mar mawquf la lol khalatam la waaye li li ñëpp jàpp ginnaaw bi moom mooy xukmul xukmul marfuan la yor wa dakara alxatibu aydan naxwa dalik fi jaamia qult moo tax ibnu salah ne bal huwa marfuan kama sabaqa dikru ñu ko waxoon ci ginnaaw wa huwa bi an yakuna marfuan axra nee na te ci la gën a yell nekk marfuan la gën a yell lu tax li kaw nii axra bi ittilaa sallam alayhi ndax li gën a yell mooy ñu ne yonte bi yëg na ko gis na loolu ñu doon wax maa ñu doon ko def loolu ñu doon def di fëggee di fëggee buntam ay weer wal xaakimu mutarifun bi kawni dalika min qabilil marfon nee na te xaakim tam nangu na ne lu mel noonu marfon la kon xëy na fii daa xaw a juum xëy na wala mu jaawale waxat kunna addat adatna hada fi ma axasna wa alayhi lii bokk na ci ci liñ ko ma ah, axasa ali luñ ko yedde daal luñ ko jàppal ci njuumte lii limaale lañ ko ci njuumte yuñ ko jàppal su ma taawal naahu lahu waaye dañ ko ko tawilal dañuy def loolu ñoomit nag rafet njort borom xam-xam buñ gisee ci moom loo xam ne daa daa wuuteeg li li li gën a wér dañ ko jéem a dogal ngànt jéem ko firi firi ne ne xeet daca jublu nangam kon وتمتأولنا على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا ونخخنا على التي جبل وين دو دو مرفون لفظا لفظا وهي معنى المموم لو أنه أجانا مرفون من حيث المعنى كان في حكم المرفون لن يوح لن يوحنا مرفون ويرجان في حكم المرفون الثاني بين تفريع قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا بطي الصحابي وحي لول ne digaleef nanu nangam wala teref nanu nangam momit day dugg ci hukmul marfu' wal mursal inda asaabil hadith wa qawl akthar ahli al ilm ñep ci borom xam-xam ci am yi ci des itam loolu la wax way nak am nañu wax lenen wa khala fi dalika fariqun minhum abubakar ismaili mom neena duñ ko jappé jàppee marfon manquuf lañ koy jappé wal awwal huwa saxiix nag لطخ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي ndax bu ñu waxee loolu rek lañ cey dégg mooy ki sañ a digle moo digle ki sañ a tere moo moo tere te saxaaba yi ka leen daa digal digale ko tere moo yonent bi rek buñ bu ne digaleef nanu te ñoom yonent bi moo daan digle kon moo nu digaloon tereef nanu moom moo daan tere kon moo moo tere woon هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قول الصحابي من السنة كفاية يب جسنا عبارة لا يخمنه اللفظ بدو لفظاً وانا بحكم نعم. المرفون لهم وأب صحابينا نعم. من السنة كذا نانغم بقون السنة فالأصح أنه مسند مرفوع ممت لأن الظاهر أنه لا يرد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب اتباع نانغم بقون نعم. السنة لم تجب لما سنة سنة هذا يوقع من بنيوارة تقول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 moom bilaal yonte bi boo digal ci wàllu nodd cee def yonte bi moo ko koy digal wa saairu ma jaana sa dalik ak lépp lu nuróog lii lu xeetoog lii wala farq bayna an yaqula dalika fi zamani rasulillahi du ci am ci bu fekkee ginnaaw yonent bi la ko wax walla ci jamonoom la ko wax mooy bi mu koy wax naan digaleef nanu nangam wala digaleef na diw nangam moo xam jamono yonent bi la ko wax wala ginnaawam la ko wax ñooyam الثالث ما قيل من أن من أن تفسير الصحابي حديث مسند ما buñ naan ab saxaabi bu tafsiree tafsir ba lañ ko jàppee marfon muslim si marfon marfon muttasil mu ne boobaa nag lañ ci jublu mooy fa innama dalika fi tafsir yataallaqu bi sababi nuzuli ayatin yuxbiru bihi saxaabiyu aw naxwi daalik waaye nag boobu day fekk mu doon tafsir boo xam ne daa aju ci sababu nusul sababu nusul wala lu ko nuur waaye jubluwuñ tafsir boo xam ne ci luxa rek la aju maanaam maanaam luxa mi rek la wax waaw moom dañ koy jàpp xam-xam boppum mi rek waaye sababu nusul nag bu ko waxee moom loolu dañ ko jàpp mos na hmm. lu mel ne jaabir bi mu ne kaanatil yahudu taqulu man atamraatahu min dubriha fi qubuliha jaal waladu ahwal loolu ci tafsiru nisaaukum xarsul lakum faatu xartakum an ma shi'tum ci lañ koy àndee jaabir bu ñu ko nettalee loolu day tafsir day tafsir aay laay tafsir boobu marfon lañ koy jàppe li ñu wax ne xalaat la ñu wax ne xalaatu jaabir la waaye sababu nus lay nett bi dañ ko jàppe marfon musnad fa amma saairu tafasiru sahabati allati la tashtamilu ala idafati cheyin ila rasulillahi salallahu alayhi wa fa maadudatun fi mawqufat seen tafsir bopp yoo xam ne nag askanale wuñ ko yonente bi saa sallam te yorut maanaa mu tolloog lu ñu askanale yonente bi saa sallam loolu moom mawquuf la mooy seen mbirum bopp la seen xalaati bopp lañ koy jàppe arabia moo mujj من قبيل المرفوع الحديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث لك لك سنة دنك فكني كي نتلي بس تابع دي وحدة صحابي سنغم نانا دات كيتك يرفع الحديث بابا كن مرفوع هذا جبن الصحابي كن تيولن تبي لكو أسكامي تبي تبعت تيولن تبي يرفع الحديث نمو يفهم لولو wala mu tudd ne saxaabi sàngam nee na teg ci yab luxu bi yab luxu bi itam ba tey loolu lay firi mooy da ko àggale ci yonente bi lay firi mu teg ci yan ñii bi yan ñii mooy da koy askanale yonente bi sallam wala mu teg ci ne riwaayatan riwaayatan mooy saxaabi sàngam moo ko wax waaye da ko nettali da ko nettali mooy da ko jël ci nit kon yëpp gis nga baat la yooyu euh, lafz bi du du waaye maanaam rafon لما نصف يعني ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية بسم السنة دي عن أبي هريرة رواية رواية الدموع الخمرة لكن مرفوعة ما تقاتلون قوما صغار الأعين بحديث بعد أك بتاي سنة دي تبقم وبه وبه ما وبه سنة نفسه سنة دي تبقم نتلو عن أنت وين يوم ونعن أبي هريرة يبلغ به بسم الله به جيتم أي معنى مرفوع له الناس تبع لقريش بالنسبة له فكل ذلك أمثال بكناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا فليب أكتب مرفوع له مرفوع صريح ما يمكن فكسابنا لأن يونت بنان مرفوع صريح wala yonent bi def na nangam mat na sarix waaye yi ñu wax itam atte boobu rek la qult wa ida qaala raawi an ittaabiin loolu mooy bu ab saxaabi ki nett la ci saxaabi bi moo ci teg baat yooyu ñu waxoon fii nag ki nett la ci taabiin moo ci teg baat yooyu kon wa ida qaala raawi an ittaabiin yarfau alxadiisa ba tey wala mën a yabluqu bihi fa dalika aydan marfuu ba tey marfuu la waaye nag mursal la ndax tuddul saxaaba yi mu ko jële taabiin bi mu fekkee buñ ne nee na an an ata yarfaahu wala an ata yabluxu bihi kon moom marfon la waaye nag mursal la ndax ata xam nañ ne jëlewul ci yonent bi waaw wallahu alam mën na yem ko bu ñëwaate jël mursal day xaw gudd kii mi بعمل زي نظام كده اه بعد نضيف ثاني وقت